barke borom Touba asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatu mbokk yi seetaan L24 TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dokkeel ci weer tedd wi waaye di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi di bisub ajjuma ni ngeen ko gisee nag ñoo ngi fii jamono yi ci jumaa ji ci jumaa ju mag ji ci tubaa jumaa yi Cheikhul Khadim jumaa yi jullit yëpp tey jii nag mu mel ni fas nañu yéene julli ajjuma diñ ko daan amalee xam ngeen ne lu mat euh, daanaka ñaari weer ci ginnaaw donte ñu ngi doon amal julli gi amaluñu ko woon ci mbooloo waaye nag lépp nag li ko waral mooy euh, gàllankoor yi nga xam ne nii njort nañ ne wala jafe-jafe yi nga xam ne nii euh, euh, wàllante bokk jëm ci feebar bi mën na ko indi waaye nag ginnaaw bi nga xam ne nii ñii di kilifa diine yi ku ci mel ni Cheikh Mountakha Mbacké ak ki nga xam ne moo yore réew mi ginnaaw ab waxtaan boo xam ne nii amal nañ ko ci la ñu ne nag mën nañoo tijji jumaa yi ak jàkka yi wéyal jaamu yàlla yi ni ñu ko daan amale saa su nekk. lépp nag euh, ñu koy def ci sàmmoonte ak euh, charte yi maanaam ci digale yi ak tere yi nga xam ne nii bàyyeekoon na ci waa kër docteur ngir na xeex tawat ji nga xam ne nii moo di Covid 19 ci biir Sénégal loolu moo tax nag fii ci euh, Jumaa Tuba gis ngeen ni ko sëriñ bi waxee ci déclaration bi niñ ko waxee ne que noonu la ko sëriñ bi waxee mooy képp koo xam ne nii dangay ñëw na nga sol li nga xam ne moo di sa masque masque boobu itam gis nañ ne respecté nañ ko fii ci jumaa ji Tuba. ñii di waa daayira ma itam ñu ngi ciy def seen kem kattan di orienté nit ñi ci ndigal loolu nga xam ne ni sëriñ bi digal na leen ko waaye leneen itam li nga xam ne ni moo di gel bi di li ñuy laal ci loxo yi bala ñoo dugg ci biir loolu itam gis nañ ne respecté nañ ko fii au sein de la grande mosquée de Touba mu nekk loo xam ne ni itam euh, ñu ngi wéyal julli gi waaye lépp rek euh, di ci bàyyi xel charte yu am solo yooyu nga xam ne nii sëriñ bi digle na ko bàyyeekoo ci kër docteur ngir na xeex ak tawat jooju nga xam ne nii jamono yi mooy bii di Sénégal kon duñ def lu dugg ci biir ànd ak yéen tuuti rek woon leen ful yi am solo yi nga xam ne nii ñëw nañ fii ci grande mosquée bu tubaax fas yéene wéyal julli gi ni ko sëriñ bi bëggee waaye nag dëppook charte yi nga xam ne nii jàpp nañ ne bu buñ ko defee jaamu yàlla gi dina wéy jàpp nañ ne buñ ko defee itam li nga xam ne nii moo di Covid 19 ak wàllanteem ak ak yaatalam dana dakk fii ci réewum Sénégal. mu mel na ci jamono yooyu nga xam ne ni itam fii ci tubaa ak yeneen juma ci réew mi ñu ngi julli am na yeneen yoo xam ne itam jël nañu dogal fas yéene bàyyi seen i yi ba ci kanam loolu lépp nag li ko waral mooy xëy na seenum xel xëy na dafa dalagul ci tawat ji ak ni muy yaatoo ak ni muy yaatale waaye li wér te mooy fii ci Touba ñu ngi waajal julli gi jamono yi euh, fidèles yi agsi nan ma ñu ngi taxaw bu baax a baax ñi nga xam ne ni ñoo di julli kon ñu ànd ful bi fii ci biir jumaa kon yéen a ko gisandoo di mbokk yi jamono yi jumaay ji ci biir fees na dell bitig yi itam daanaka fees na mbokki julli yi taalibe yi ñu ngi ñëw fas yéene wéyal li nga xam ne ni moo di julli gi di xaar Serigne Touba Cheikh Mountakha Mbacké ni mu koy defee moom itam aju mu jot ñëw def farataay suñu borom ji kon ni leen ko waxee ci njalbeen rek fii ci tubaa incha allah rabbi fas nañu julli jumaa ji waaye lépp rek ñu tënku ci charte yooyu nga xam ne nii mu bàyyee ko ci kër docteur Serigne bi yeesalaat ko muy takk masque Euh, laal li nga xam ne ni moo di gel ci gel bi ngir itam euh, lii di euh, xeexub coronavirus donte jamono yi gis nañ ne mu ngi gën a yaatu waaye kenn jiitu ci tubaa kenn jiitu ci grande mosquée bu jër jërë ngeen jëf di dinañ ànd ak yéen li des ci julli gi jaajëfati ak L24 TV.